Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. wa rahmatullah taala wa barakatuh asalaamaaleykum waa Sénégal diaspora man la Diagne Solution di patriote di remercier toutes les patriotes yi nekk ci réew mi ak yi nekk ci diaspora bi di wax nag euh, comme vidéo bi ku ko mën nga partagé ko parce que lu àdduna ne war di déglu war a di xalaat ci képp koo xam ne ne senegale nga te am sa xalaat ak sa gis gi ci réew mi di wax tamit yàlla na fi yàlla def jàmm man nag ñëpp xam nañ ma ci taalibe sëñ baabakat si radiyallahu taala anhum di sëtam nag tamit lu tax may wax loolu waxuma ko ngir dara mais nag defe naa ne am nañ lien de parenté parce que sama maam ak maamam ñoo bokk menn meen meen boobu ñu bokk nag muy ci njara mbay njara mbay moo am ñetti doom buñ bu tudd roqee siidi diyaana siidi xaar yàlla siidi ñoom ñetti jigéen ñoo bokk ndey ak baay benn frère lañu am bu ñuy tuddee Babacar Njare Babacar Njare nag moo jur Assu moo jur Souleymane Diop Souleymane Diop Assu Diop Assu Diop jur sama maam ndey ngeen a Badiane Babacar moo kii eh, Njare Mbay moomu mooy jur xaar yàlla di jur roqee Njaay Ali bu di yaay sëñ Babacar si radiyallahu taala anhu loolu nag lu tax ñu koy wax pour wane ne nit boo amee ci meen boo bokk war nga fa fexe ba lépp looy rafet lépp looy wax wala lépp looy def nga wax ko ci dal ci teey te defe naa ne loolu moo ñu dugal ci politique am ci nag soppe parce que ku nekk war nga am soppe sama soppe nag muy sëñ abdu Aziz Sy Dabakh Malick ku ñëpp ràññee woon ci dal ci teey ci teraanga ci ngëm-ngëm mais lépp ci ragal yàlla ñu teg ci cheikh al islam maam Baye ñas nga xam ne boo ko gisoon rek ci photo ak lu mënti doon rek day mel ni comme liñ doon gis ci yonent bi am nag référence kan mooy sa référence ñu ne Serigne Saliou Mbacke ci dal ga ci teey gi di wax àdduna yëpp képp ku mu sa tiim boo ko tiimee di nga laajte est-ce que kii mooy sëñ Saliou Mbacke mi ñu doon wax parce que li mu représenté woon ci murit ak li mu représenté woon ci àdduna ak li nga xam ne ne maamam papaam def na ko ci àdduna mais doo ko xool mu ko gis ko ci moom ci woyof ga ci dal gi ci teey gi kon nag kooku ñooñu noonu ku leen am référence waroo wax lu ñaaw waroo def lu ñaaw waroo jéem lu ñaaw te doo xalaat lu ñaaw di remercier nag di ñuy wax ne nañ def ndànk parce que nguur dafa bare doole muy sama kilifa yi sunu xarit yi sunu dëkkandoo yi sunu am di jàmm nii ñépp ñu ngi ñuy woo dañu ne def leen ndànk arrêteel wax gi wala bàyyil wax te war nañ xam ne ni gor gor piir warul daw te gor warul ragal te gor du changer sa waxu démb moo war a nekk sa waxu tey sa waxu tey moo war a nekk sa waxu démb te loolu defe naa ne ñuy wax dañ ko gis ci sunu président muy Ousmane Sonko kon ñun waruñu daw te man du daw du ma ragal mais nag lépp nag dina ànd ak sama xel kenn du ma def loolu lu àndul ak sama xel loolu nag luñ koy mën a wax te gaa yi war ci bàyyi xel mooy àdduna yàggut te kenn amul doole yàlla rek am doole te képp koo xam ne ne yaakaar nga ne doole nga am yaa ngi nax sa bopp amoo doole yàlla am doole te àdduna mënul neex a neex a neex boo wax bu dul dëgg féetoo wax buy dëgg kaw mënul nekk c'est impossible parce que yàlla li mu wax du dëñ te man dama ko gëm barke sëñ Babacar si ma ma yaakaar dëgg mënul ta weesu lépp loo nekk muy dëgg mu yàgg ak mu gaaw dëgg rek mooy mujj te dëgg rek mooy njëkk moo tax yenn yi jarul sax ragal te ragal yëpp yàlla la ki nga xam ne ne xamoon na di nga fanaan wala doo fanaan fii ñii fii wax muy ñi jiite ñëpp kenn xamu ci ndax suba di nga fanaan muy man muy keneen waa ko xamul ne di nga fanaan buñ la tëkkoo nga ragal mooy kon gëmatoo yàlla fii kenn nekk fi yàlla rek a fi nekk ku yaakaar ne yaa fi nekk wala yàlla jox na la doole ba nga teg ne mun nga ci mbugal ay nit yaa ngi nax sa bopp nañu ànd ak dal ak tey di woo toutes les yi fi nekk ak yi nekk ci diaspora bi ñu ànd ak dal ànd ak tey bañ a yàq bañ a fay mais nag ci fulla ak fayda parce que nag fulla ak fayda kenn du ko maye yaa koy moomal sa bopp te yaa koy jëlal sa bopp amul kenn koo xam ne dañ lay da dugg ci àdduna ñu ne la dañuy dem ci magasin wala ci boutique ne la fii la ñuy jëndee fulla ak fayda ak jom kenn du ko jënd kooku parent sax mënu ko def ci loolu yaa koy moomal sa bopp te yaa koy jëlal sa bopp te bu la kooku moom ku nekk war nga ko jëlal sa bopp di wax ne ne bëri na yu fi am depuis un certain temps ñu ngi topp ci ay mbiru viol mbiru nangam ci Ousmane sonk waaw man ma am lu ma ci doon laajte parce que dafa am benn lecture bu ma ci def du bëri sax parce que dama jàpp ne en 2016 2016 2018 waa AGS dañoo def benn euh, dañoo def benn euh, gëstu ñu ne plus de quatre mille trois cent vingt femmes violées et pédophilie ñoo xam ne ne ay xale ay mat ñooy tëddee ay xale am ñun ciy rey am ñoo xam ne ci viol lañ leen la ñuy jaaree dee te ñooñu noonu di ci jaaree dee yëpp àdduna mënut neex wala mënut a naqadi ba ñooñu duñu ay sénégalais te loolu yàgg na fi pour pourquoi yooyu yàgg fi mu am mu métti mu neex te kenn mësul dégg dara kenn mësul wax dara ba bu yàggut lañ fi door a criminaliser ko waa léegi nag ñi fi jaaroon muy xale yi nga xam ne ne dañ leen violé rey leen ñooñu duñu woon sénégalais te loolu boobu 2016 kan moo fi nekkoon ci nguur gi ñoom ñu ngi fi ba léegi ñoo fi nekk ba léegi waaye ñooñu kon moment boobu ñu fi dee muy xale yi ñu ay mineur ñi am ay 3 ans 4 ans ñu violé leen fi rey leen ñooñu kon bokkuñ si Sénégal kon ñoo ñu amul benn devoir wala li leen doon métti wala seen parent yi ñoom du ñu woon ay parents te ñuy sénégalais yor kayitu sénégalais yor nationalité sénégalais amuñ sa double nationalité bu dee ñooñu ñoo mun lañ seetaan wala sàggane leen ba tey jii nii ci problème bi kenn ku nekk di am looy wax. di wane sa bopp di wane ne peut-être yaa yore nguur lu la neex ngay def lu la neex ngay def gis nga fii ku yaakaar ne ne nguur da nga koy téye ba abadan da ngay nax sa bopp firaawo na daf fi jaar façon buur bu nekk jaar na fi te lépp bàyyi nañ ko fi kon nag ñun ñi fi nekk nañ xalaat ne ne bés dina jot ci bàmmeel ngay tëdd ku mu neex ku mu naqadi ci bàmmeel ngay tëdd te yow rek sa jëf rek a la fay fekk kon nañ rafetal defin gi nañ rafetal ànd bi li fi xew nii kenn rafetlu wu ko Ousmane Sonko ko wootewu ko ay nitam wootewuñ ko jàmm la woote mais nag ci jàmm googu dina du léegi nag yi ci am nii ñu dégg ci ay bavure am ay ñu ci dee ñu ngi leen di ñaanal ñi fi dee yal na leen yàlla xaare àjjana yal na leen yàlla leeral seen bàmmeel te ci jaxit lañ dee parce que réew mi lu fi métti ci xol li fi métti ci xel li fi métti ci jëfin li fi métti ci am-am ak coono yi nit ñi di dund moment bi nu mu méttee nit ñi génn lépp lan moo ko indi mooy réew mu stable réew mu métti réew moo xam ne ni ñëpp a ngi sonn ñëpp a ngi jaaxle loolu moo tax peut-être lii yëpp am ci tey boo gisee sax yi ñuy yóbbu nii ci yi ñuy yàq kenn ñaanul yàlla yàq parce que ku war a defar waroo yàq ku war a jiite waroo yàq mais nag looloo tax benn waay muy benn journaliste Pape Alé Niang waxoon ko mu ne nañu àtte nañu artu bi moins ku àttuwul di nga àtte te loolu moo ñëw léegi nii gis nga yii ñu fi wax yëpp buñ ko teeloon préparé teel ko taawlu kon heure bi problème yii yëpp di am du fi am moo tax ñu ngi woowaat réew mi di woowaat ñëpp à la raison muy ñi ko jiite nag parce que ñoom ñoo war a wootee à la raison mais communiqué yi ñuy dégg rafetul ci ay kilifa parce que yii ñuy commencé di wax ay acte de terrorisme ban acte Ousmane Sonko woo nañ ko mu ne duma dem ay kilifaam woo ko ñaan ko ne ko loolu bu ko def parce que boo ko defee teggi yoon demal mu jël courage ne lépp lu ma jàppoon man en personne sama xalaat sama xol danaa ko bàyyi dem ànd parce que kilifa yi ñaan nañ ma te loolu mooy nit nit day am kilifa ku dul am ku amul kilifa jënd di sa kilifa mu am kilifa ñu ñaan ko mu bàyyi ne kon dana dem waa di dem nit ku nekk bu buñ la euh, euh, waxee buñ la joxee convocation amoo jaar amoo droit jaar fu la neex fi nga bëgg ak fi nga war a dem mais yu kooku yaa ko moomal sa bopp la ñu ne la doo jaar fii fii ngay jaar par force ñu lay jaarloo fii dañ ko xam ma ne nañ bàyyi caaxaan yi àdduna caaxaan yoru ko dëgg moo ko lal te dëgg moo ciy mujj te yàlla li mu wax dama ko gëm mooy du dëñ maa kaana lillaahi kaana laahu lahu ku nekkal buur yàlla yàlla nekkal la bu ci kenn bu ci kenn caaxaane ku nekkal yàlla yàlla nekkal la kon moo tax nañu bàyyi xel ci sunu borom yàlla rek moo fi nekk naa jaar fii nga ne du fi jaar fii laay jaar ñu ne doo fi jaar ñu def lu nekk jël ko na ko coppet yóbbu réew mi mel ni luy tàkk ci loo xam ne ne moom wootewu ko woon te pourtant mënoon nañ ko accompagner rek soo bu mu mënti def mais nañ ko accompagne nañ yuuxu nañu tàccu nañu def lépp mais ñu ànd ak moom ci dal ci tey yóbbu ko ba fi ñu ko woolu mu dem wax ak moom jógewaat fa bu dee dañ koy bàyyi ñu bàyyi waat ko mu ñëw bu dee dañ koy jàpp ñu jàpp ko yóbbu loolu c'était plus simple que lii fi am nii yépp te lépp lu ko waral mooy ñu janaxe instant bi dañoo janaxe parce que li ñu yor lañ bëggut a bàyyi billaahi wallaahi gis nga li ngeen yor heure bu ngeen ko waree bàyyi di ngeen ko bàyyi ci nii wala ci nële parce que lu tax lu yàlla di jël la nguur moo koy xool nu mu ko neexee mu jox la ko moo koy xool nu mu ko naqadee mu jëlaat te bu ko waree jël war ngeen mën a xam ne ne ñi fi nekk waroon ngeen bàyyi xel bañ leen koy jox 14 morts ñoo am di 12 au 14 morts yoo xam ne amoon nañ fi mu métti lool ñu yekk lu mel ni lu mel ni xeme Ablaye Wade mais gàcce ngalaama au moins moom il a le sens du patriotisme te loolu yëpp bi mu koy def wala bi ñu ko ciy sonal. mënoon na insister comme ni mu ngi pour ni ngeen insister nii kon li ko ci li leen fi nekkaloo nii ngeen falu du ngeen falu mais loolu yëpp daf ko bàyyi ci démocratie lépp jaar ci yoon ba ngeen bañ ñëpp sottandoo ko ñu gañandoo ko ñu fal kii à cinq pour cent adduna yëpp loo xam ne lu gëj di am ñëpp jàppale la tey boo demee ba toll ci lii réew mi war a toogaat fii gàcce la sax billaahi wallaahi Sénégal gàcce lañ am parce bu demee ba presque huit ans lu ma quatorze morts amoon tey ñu ñëwaat ba ñëpp di am regret ba amaat ay quatre morts ci defal lii bàyyil demal deew ma viol ak ñàkk viol ñu indi problème bii ba ay morts amaat ci non gàccale ci ñu ñu jiite. parce que seen xel waroon na dem ci démb huit ci ginnaaw bañ leen di jàppale ba àdduna yëpp di leen bàyyi xel pour tan demee wutoon nii ñëpp dañu àndoon nag yéen kon waroon ngeen bàyyi xel gis nga nit day gore am gore ñàkk gore wéet gore loolu muy dëgg. moo tax yii ngeen di def nii ànd leen ceeg dal ñi fi àtte yëpp nañ bàyyi xel suñu maam keebaa Mbaye nettali gu rafet rek la fi am ku yaakaar ne ne lii day continuer da ngay nax sa bopp parce que lii day jeex kon ñu ngi leen woo à la raison surtout ñu jiite réew mi ñu delloowaat seen sagesse ànd ak xel ànd ak dal xam ne nguur yàggut te dafay jeex loolu moo taxoon ma ne woon dinaa ñëw waxte bi wax tamit nag. li fi am nii ñu dégg ay kilifa euh, ñu dem génn démb euh, def déclaration ñoom ci li ñu wax yëpp ci déclaration bi defe naa ne àdduna déglu nañ ko ci maanaam acte de terrorisme kan mooy acte de terrorisme ki nga xam ne moo jaar impôt et domaine wane fa dal wane fa jub wane fa dëggu wane fa ragal yàlla wane fa génn yàlla kooku mooy wane acte ñan ñooy euh, wone acte acte de terrorisme mooy ñiy jël sunu alalu réew mi di ko saax-saaxee di ko partage di ko lekk mu def ko comme gâteau ñooñu ñoom ñooy def at acte de mal boobu ñoom ñoo koy def mais du acte de terroriste biñ bëgg a jiiñ ki ñu bëgg a jiiñ nii gis nga lu ngeen ko mën a jiiñ nit ñi duñ ko gëm parce que xam nañ li nekk ci moom gis nga fii ku yaakaar ne ne sa waxu démb ak sa waxu tey dañ ko fiy tegaat sa jëfu démb ak sa jëfu tey dañ koy wonewaat jëf yooyu nag kenn ku nekk bu ñu la wanee sa jëf di nga xam ne ni moom du ñoom du yéen yéen du ngeen moom àdduna mënul neex ba ngeen men na moom li leen jaaxal na mooy loolu moo tax lu àdduna yëpp jàpp ne yéen ak moom a yem ngeen koy jéem a dugal ci boppu nit ñi yemoo leen moo leen gën moo leen ëpp diine moo leen ëpp yërmande moo leen ëpp humanisme moo leen ëpp patriotisme pour le pour sa pays kon nag loolu bu ngeen nekk tegee dina yéen a ci yem yemoo leen ci bokkoo leen du ngeen moom te du yéen looloo tax nag bu yeboo ngeen ànd ceeg dal xam na ne loolu yëpp ngeen di xalaat ni wala loolu yëpp ngeen di def bu yeboo ngeen bañ sonn yàlla daf koy defal gis nga li mu xasa yee ci ñun yeewu na ba pare muy conscience gis nga même bu dul Ousmane Sonko y a plus de seize mille Sonko sur sa sur le sol du de ce pays ñoo xam ne ne léegi xas nañ ba yeewu kenn mënatu leen nax gis nga nit mënu fay wax wala ba ëpp fi xel wala ba jéem fi dugal ci bopp nit ñi loo xam ne nit ñi gëmuñ ko da ngeen di nax seen bopp nit ñi yeewu nañ ba pare te le combat continue ci résistance ci dal ci teey ci ànd xel nag parce que ñun idée lañuy ñuy xeex xeexuñ li ngeen di xeex doo fi toog doo jël doo bokk doo nàngam ñun xeexuñ loolu xel la ñuy xalaat dañuy xel di xalaat di xel di xel yi loolu la Ousmane ko woote te loolu la nit ñi gis seen bopp moo tax àdduna yëpp di ñëw di ko jàppale di wax nag di woo ñëpp ñu dal ànd ak tey xam ne àdduna day jeex lii ñu commencé def nañ ko bàyyi di avertir nag di woo solennellement maître Ciré Clédor Ly am na vidéo yu fi commencé génn vidéo yooyu chinois yi dañoo am benn logiciel logiciel boo xam ne ne 3 virgule 7 secondes man jaañ solution man mun nañ génn li ma xas a wax cat boobu muy 3 virgule 7 secondes yi ma wax rek mun nañ ko jël yàq ko wane ko adduna yëpp dégg ma ñu yaakaar na maa ko wax fekk waxuma ko loolu nag ñu ngi ciy woo maître Clédor pour mu bàyyi xel am na video yu commencé di daw ci réew mi ñu wane ne yow yaay wax te fekk yow waxoo ñu ngi lay def appel nag nga delluwaat ñu ngi lay ñaan nga wax direct ci rajo yi ci télé yi nga xam ne ñu ngi leen di suivre nag yu adduna yëpp di déglu nga démentir loolu parce que ñu ngi indi xel ak jaxasoo ci xelu nit ñi pour wane ne loolu yaa ko wax te xam nañ ne yow ku la dégg biñ la gisee wala liñ la xam lépp ci baro bi mooy lu baax lu rafet lu dëggu rek moom nga yàgg dëgg bokkook ñenn ñi kon nag loolu ñu la xamale ñu ngi lay ñaan pour nga def appel wane ne loolu amul te waxoo loolu te leneen lu luñ fi bëgg indiwaat dañuy nax nit ñi mais loolu amul bu yeboon nañ vidéo nañ caméra nañ filmer nañ def lu nekk ne Ousmane Sonko moo def li moo wax nit ñi duñ ko gëm xam nga lu tax balaa ñu ko doon gëm ngeen wane ko avant ngeen koy jàpp man en personne loolu laa njëkk gëm bu ngeen wane woon lépp avant ñu koy jàpp lu ngeen wax ñu gëm ko mais du ngeen bàyyi ba jàpp ko ba téye ko téye ko lu ma depuis xaw ma ñaata fan ñeeneen ko téye démb ñu gis lépp ci réseaux sociaux ñëpp gis ko ay avocat am ne dañ koy gis ngeen ne duñ ko gis jël ko ay 3 heures du matin ay 4 heures matin xamuñ leen lu ngeen ko defloo xamuñ leen lu ngeen ko waxloo xamuñ leen lu ngeen ko loo ngeen bëgg a woon nag ëllëg suba ngeen ñu ko génneel ne ne nag pour li ngeen li ngeen xalaat lii la lii la amee moo wax lii wax leen nag àdduna yëpp a ngi leen di dégg mais du tax ñu gëm ko parce que loolu du moment bi ngeen ko war a wax te àdduna lan moo fi nekk képp ku ñu woon ci yoon képp ku ñu woo ci diine diine l'islam dafa ne da ngay na jàkk gis li na jàkk na kenn du ko jéex te ñi fi war a wax jàkk ak ñi témoin ñëpp doy na doy na preuve kon na bu ngeen fi buggaatee di indi yeneen yokk ci xar mi karaw la mais nit ñi duñ ko gëm looloo taxoon ma ne woon naa ñëw lancer message boobu rek di dalalu ñëpp di baalu ñëpp àq nag di woo ñëpp ci dal ci tey yii ñuy yàq ak yii ñuy kii vraiment métti na ci réew mi parce que am na ñoo xam ne seen yoon nekku ci ñu ngi leen di yàqal te ñooñu nag ñiy raas déem la parce que lii loo tax ñu ne ku àttewul ku àttewul di nga àtte loolu moo indi lii parce que ñeneen yi dinañ ci profité wax ci lu ñu war a wax wala jëf ci lu ñu warul jëf te fekk loolu yëpp du loolu lu ñu xalaat loolu laa amoon li may ji wax di wax toujours nañu ànd ak dal ànd ak tey te gëm yàlla nañ gëm yàlla gis nga yàlla moo fi nekk kenn nekku fi yàlla miy dogal miy joxe mooy joxe te dina ko jox yàlla dina ko jox Ousmane Sonko bu ko ko joxul xel yi yeewu ne ba pare dinañ ko wutiwaat ci ñeneen te incha allah balaa ñu koy wut ci keneen dinañ ko wut ci moom te dinañ ko jàppale ci dal ci tey duñu saaga duñu ñu xuloo ñun lee patriotes waxuma nag ñeneen ñu ci dugg ñun les patriotes Diagne Solution nee na ñun lee patriotes du ñu yàq du ñu toj duñu wax lu dul dëgg du ñu jëf lu dul dëgg wa allahu mun yàlla rek a xam te loolu yàlla wax mooy dëgg mooy mujj te mooy njëkk wa asalaamualeykum wa gëmuñ kenn Sonko rek ci kaw ci kanam ndam rek wasalaamaaleykum merci beaucoup merci beaucoup yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla na fi yàlla jëlee feebar bi ñëpp delluwaat ci jàmm liggéeyaat ci jàmm dëkk bi naat loolu yëpp lu ko war a indi des hommes de valeur des hommes de valeur ñoo mën a indiwaat loolu ngeen baal ma àq Diagne Solution patriote jëwrini Ousmane Sonko jëwrini ci politique wasalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu merci beaucoup ba merci beaucoup ba fan yi incha allah yàlla nañu yàlla defal jàmm yàlla nañu yàlla jàppale yàlla nañu yàlla suturaal lii nit ñi di tiit jarul ñu koy tiit duñu wax lu bon duñu jëf lu bon wallaahu wallaahu axlamu yàlla rek a xam te in yàlla nañu yàlla jàppale bañ bañ a tarxiis merci beaucoup merci beaucoup bye bye Abonnez-vous sur pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.